بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu ñu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala mu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ginnaaw loolu tey ñoo ngi jël buntu fanweer ci kitaabu tawxid di jël قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ba mooy bunteelu fanweer ci kitaabu tawxid sunu borom subhaanahu wa taala di leeral ci lenn ci pas-pasu ay nit pas-pas nag saa yoo ko déggee mooy ngëm-ngëm borom bi ne wa minan naas am na ci nit ñi man koo xam ne yattaxisu day jàpp min dunillaahi leneen dudul yàlla andaadan daf ko ay ndend mu ne yuhibbunahum danañ bëgg ndend yooyu danañ bëgg loolu gaa yooyu le ka xubbillaa comme ni ñu bëgg yàlla aaya bi mooy fanweerul dars ci kitaabu tawxid mu ne su ngeen gisee boroom xam-xam bi daal di jël aaya bi dugal ko ci kitaabu tawxid mu ne lamma kaanat mahabbatuhu subhanahu wa taala hiya aslu diin al islaam allazi yaduru alayhi qatbu raha mu ne bi ngeen xamante ne bëgg yàlla tabaraka wa taala mooy cosaanu diine islaam cosaanu diine lislaam li ko lal mooy bëgg yàlla bëgg bi di nit ki di bëgg mooy indi ngëm gi ngëm gi mooy indi jaamu da ngay dégg ñu ne la innal muhibba liman yuhibbuhu muti ku bëgg topp la nga bëgg kon bëgg yàlla mooy cosaanu diine islaam ci la diine ji teg ci bëgg yàlla ci la nit ki di matalee lépp subhaanahu wa taala ci ñàkk bëgg yàlla wala ngëm gu manqué ci la doomu aadama di manqué ci la tawxiidam di manqué léppam ci lay manqué su fekkee ngëmam gi dëgguwul mu ne loolu moo tax boroom xam-xam bi nabbaha al musannif ala zalika bi haadihi tarjama loolu moo tax ki bind téere bi bëgg bi mu yee nit ñi yee jullit yi pour ñuy bañ di dendale yàlla ak kenn wala lenn ci bëgg biñ koy bëgg loolu moo waral boroom xam-xam bi daal di indi aaya bi dugal ko ci kitaabu tawxid pour yee nit ñi ñu xam ne yàlla kenn du ko bëgg di bëgg leneen wala keneen wala mu ne qawluhu taala wax ji yàlla wax ne wa min annaas man yattaxis min dunillahi andaadan mu ne bu ñu demee ci benn téere bu tudd charxul manazil danañ fa fekk boroom xam-xam bi di firi aaya boobu mu ne axbara taala anna man ahaba min duni illahi shay'an kama yuhibbu allaha taala fa huwa mimman ittaxaza min duni illahi andaad boroom xam-xam bi bi muy firi aaya boobu nee na képp koo xam ne dangaa bëgg yàlla subhaanahu wa taala leneen lu dul yàlla comme ni nga bëgg yàlla yow day mun nañ laa classé ne ku jàpp leneen lu dul yàlla def ko ay ndend bala ñuy xam ne bëgg leneen lu dul yàlla danger la wala nga bëgg kenn di ko dendale ak yàlla danger la bala ngay xam loolu dëgg-dëgg mooy sa soxna bëgg la bëgg keneen kan ma ko nangu fii ci jàkka ji sa soxna bëgg la ba pare ne la ah man de am na keneen ku ma bëggaat jigéen ji loox loolu loo koy wax demal ci kooku mën nga bàyyi ma léegi nag natt kook sa borom subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo la bind moo la sàkk moo lay dundal xéewal yi mu sëmbërtal ci yow kenn mënu koo lim moom yàlla moomu tabaraka wa taala nga bëgg koo bëgg bëgg leneen wala nga bëgg koo topp topp keneen mu ne moo tax ku def loolu yow de dañ lay compter kaman comme koo xam ne ittaxasa jàpp na min dunillahi leneen lu dul yàlla andaadan def ko ay ndend mu ne fa haza niddun fil mahabba lii mooy dendale yàlla keneen ci bëgg bi ñu ko bëgg mu ne kon bëgg yàlla tabaraka wa taala kenn du ko taqale wala ñu koy dendale wala ñu koy natt ak keneen yàlla rek moo tax borom bi ne su ma doon wàcc ci kaw suuf ci xol yi laay wàcc waaye xol bu ma ne cëpp fekk fa keneen ma bàyyi kooku ak xol ba ana aghna ashuraka ani shirki man yàlla dama doylu bokkaale képp koo xam ne bokkaale nga ma keneen ma bàyyi laa kooku ba ma xool ëllëg ndax kooku am la lum la mënal kon mbokk yi fa inna aksara ahlul ard li ëpp tey ci kaw suuf xat ittaxasu min dunillahi andaadan fil xubbi wa taazim li ëpp tey ci kaw suuf dañoo jël ñeneen lul yàlla bëgg leen wala màggal leen sooy xool tey Sénégal waxuma sax àddina bi ndax sunu tànk soriwul waaye fi ñu dëkk bokk di nga gis ay doomu aadama yoo xam ne ni ñu bëggee mbindeef mi bëggee wuñ ko yàlla wala ni ñu koy màggalee ni ñu ko màggalee yàlla su ma leen doon jox misaal da ngay dugg ci kër sëriñ bi dugg ci saal bi ñu ne sëriñ baa ngi ñëw nga simi sa mbaxane wala gis ngeen loolu wala gis leen nga dugg ci jàkka ji doo simi sa mbaxane néegu sëñ beeg jàkka ji lu gën a rëy jàkka ji néegu kan la ah lu tax nga dugg fa tàllal say tànk sol sa mbaxane di wax nu mu la neexee misaal la di wax ci kaw di yuux nga ni faraax ci néegu sëñ bi lemu sukkandiku ci suuf si mi sa mbax ne doo ñemee wax walla gis leen lool di wax ndànk te bi nga ne koy jàkk ji yaa ngi doon yuuxu daf loo neex amaana sax ñu ne la sëñ bi nga ne daal di ci xot toj waaw waaw nga dem ci tribunal bi juge bi di ñëw ñu fëgg taabal ci ñu ne fay leen portable yi portable benn du sonné tribunal yaakaar ci portable yi dañuy sonné te bu ñu li xaamee dañ naan fay leen portable yi kenn du fay ñuru koo nga dégg portable yi li sonné kenn kenn kenn kenn mu leer na ne kii déggoon na ñu ne fay leen portable mais fay ko te bu dee tribunal boo xasee dóor yat bi ci taabal yi ne fay leen portable yi benn gars yi dañuy fay ñu ne simmi leen verre yu ñuul yi ñëpp simmi ñu ne simmi leen mbax na yi ñëpp simmi ñu ne bu fi kenn wax ñëpp ne tekk jàkka ji nag su sis bi ñëw ñëpp jóg taxaw walla ñëpp ñëpp dañu jóg taxaw kenn du toog kon da nga gis ci àddina boo bàyyee ñooñu nga ñëwaat ci président de la république bi kazalik ni ko nit ñi di màggale waa parteem ak waa réew mi niñ koy nuyoo niñ koy fonke ah nga fekk moom yàlla subhanahu wa taala soo waxee ay mbiram kenn du kenn du réagir kenn du yëngu kon am na ñoo xam ne ni ñuy màggale nit raw na ni nuy màggale yàlla ni nuy bëggee nit ki raw na ni nuy bëggee yàlla loolu moo tax borom xam-xam bi jël aaya bi duwal ko ne wa min annaas man yattaxis min dunillahi andaadan yuhibunahum ka hubbillah Mhm. waaw Mhm. waaw ndeysaan Mhm. Mhm. waaw Mhm. ah dëgg la dëgg yàlla ah déedéet waroon na ko wax dëgg gi rek amul dara amul benn yoon amul benn yoon li kooku foofu tontu bi ñaar la bi njëkk mooy waaj warul dem màkk parce que amul su demee ba ñu ko yóbbu ba jox ko dafa war a dem léegi am na bi mu amulee amul wàcc na ko biñ ko mayee am na jox nañ ko ko ci loxoom bu demul day am bakkaar léegi farata la moom dafa violé farata mi ngi mel ne julli jot mu ne mu ne mu ne du ma julli bakkaar bu rëy la am nañu bàyyi li ñuy layee naan ay kii tabaxu gu këram ne du dem màkk kii yooyu du diine de yàlla subhanahu wa taala moo farataal aj képp ko am demoo yonent bi nee na bu yoboo nga nekk yahud wala nga nekk nasaraan waaye doo dee dajeeg man nekk jullit est-ce que am nga beneen bi mooy ki la ko yéene jox la ko lan la la wax boo ko ne woon dama koy séddale waa dëkk bi jox sëñ bi du la ko jox du la jox xaas bi du la ko indil kon kay wax dëgg yàlla kooku tamit may la bul tas yaakaaram be- beneen yoonee boo ñëwaatee nga ne ko may ma lu ma jox sëñ bi wala may ma lu ma jox waa dëkk bi mu ngoog mu ne qawluhu taala walladina amanu ashaddu hubban lillah mu ne ahaduhuma walladina amanu ashaddu hubban lillah min ashaabi al andaad li anna andaaduhum wa alihatahum allati yuhibbunahu wa yuazimunahu min dunillah mu ne li des ci genn wàllu aaya bi walladina amanu ashaddu hubban lillah mu ne ahaduhuma ñaar la bu njëkk bi fi taqdiril aaya qawlaani mu ne aaya bi am na ñaar yu mu ëmb bu njëkk bi wallazina amanu mun a ñi gëm ashaddu xubban lillah di nga fekk ñii li ñee di gëm di dof yépp ñii ñoo leen gën a dof ci yàlla su ma leen doon jox misaal rek ak événement bu passé fan yi France wala ñaari xale yooyu ñoom leer na leen ne gàddu ngànnaay waxuma la sax nga dem naan da ngay rey nit waaye gàddu ngànnaay biir France lan la ah déli la de waxuma dara nga gàddu kalashnikov ah waxuma dara nga kagulu ñëw dem di rey ay nit biir ci biir capital bi loolu la la ñooñu xamoon nañ ne duñ ci génn mais lan moo leen poussé damay bi may ñëw léegi-léegi sama soxna dafa may woon Facebook bi benn tubaab bu rëy ci tubaab bi daal di tuub te événement bi moo ko tuub loolu mu ngi bokk ci parti droite bu Jean-Marie Le Pen tub ba pare yamul def tub de dem di waar waa parti bi ñu dàq ko ci parti bi imaan boobu xale yooyu am jàmbaare boobu di nga fekk kon ñi gëm yàlla ñoo gën a dof téeméeri yoon ñee di di bëgg ñeneen ndax ñi bëgg yàlla moom jaral na leen dee wala yàlla mu ne wallazina amanu ashaddu xubban lillah akbara taala mu ne yàlla subhanahu wa taala xamal nañ ci aaya bi mu ne ñi nga xam ne dañoo bëgg leneen lu dul yàlla di nga fekk di ko màggal di nga fekk ñi bëgg yàlla subhanahu wa taala ñoo leen gën a raw gën leen a gëm fap su leen benn ñii bu leen benn jaral leen ñi téeméer jaral na leen ngir yàlla kon ku gëm yàlla noonu nga war a mel jëlee na ci ibnu jarir an mujahid mu ne yuhibunahum ka hubbillah mu ne mubahatan wa mudahatan lil haqq bil amdad di nga fekk ay nit ñoo xam ne ni ñu bëgg yàlla dañ koy ni ñu ni ñu bëgg keneen ku du yàlla dañ koy manifesté wu di tiitaru di fëgg seen dënn di yuuxu ci kaw yenn saa yi nga gis koo xam ne bokkaale lay yuuxu ci kaw ay baati bokkaale ba pare di jéem a ut ñu mu naqar yi ndax xam na ne li muy def jaaruwul baaxut mais du koy wax ci kaw amoon na benn góor chaque instant dama koy nettali bu ñu daan julli jumaa day bàyyi ba ñu li xam mu ne bismillah fas yéene julli ci barke Muhammad ci daraja diw ci kàttanu diw lim ñeneen ñëpp boo waxee yonent bi ñeneen ñëpp ñu muy wax Sénégal la ñuy dëkk ñeneen juróom ñi mais foog ñu mat juróom wax seen tur ñeent la doon wax waa jàgg ji ne ko yow doo bàyyi ngay def mu yokk keneen ñu mat juróom te li garaawoon mooy su ko daan wax sax ndànk parce que am na ñu koy def am na ñoo xam dañuy bàyyi ba ñuy kàbbar ñuy bokkaale mais moom day yuuxu ci kaw day bàyyi ba ba ñu bi ñu ba ilimaan bi ne allahu akbar ba nga xam ne léegi ñëpp a ngi concentré wu mu ne bismillah fas yéene julli ci barke yonent bi ci daraja diw ci diw ci diw ci diw ba mu mën ñeent gars yi tere ko mu mottali ko juróom xoolal xoolal kooku loolu muy def noonu lan lay wone man damaa gëm fi ma bokk damaa bëgg ñi may wax loolu mooy yuhibbunahum ka hubbillah dañu bëgg ñooñu comme ni ñu war a bëgg yàlla gis ngeen góor googu bi muy faatu dafa dee ci biir néegam ba nëb ba koñ bi yëpp di xeeñ xamuñu lan la en tout cas nit ñi xam nañ ne kër gii la ñu dem woy sapeur yi ñu da ubbi buntu kër gi dajji ko dajji néeg bi ñoo fekk ci néeg bi mu saxee ay perméable lañ indi teg ko ci ci matla bi lañ teggi noonu rek ëmb ko ci matla bi teg ko ci perméable daal di yóbbu kër googu ba fi may wax ak yéen kenn dëkku fa ba fii may wax ak yéen kër gi kenn dëkku fa boobu ba léegi kenn dëkku ci kër gi kër gi mu ngi mu ngi école wetu école 16 yéen ñi fi yàgg kër gi ba léegi kenn dëkku fa kon lu bon baaxul waaye xam nga lu garaaw ci lu bon mooy maa tey maa koy def kenn mu ngi ci dërëm lii laa gëm nga gis tey dëkk bi yëpp daanaka loolu la ñuy def da ngay gis ci suñu xew-xew yi am Sénégal ku jël oto duy ko ba mu fees daan ne dund dem dee dem dund dem dee dem soo waxee waa ji lu tax nga koy wax mu ne bu ma dundee dinaa dem bu ma dee ñu yóbbu ma maanaam yuhibbunahum ka hubbillah dañuy bëgg loolu comme ni ñu bëggee yàlla wala sax ñu bëgg leen lu raw ni nu bëggee yàlla loolu ab jullit du ko def kenn du nekk ci lu bon ba pare di ko manifesté wu moo tax mu ne da ngay gis koo xam ne daf koy def ba pare di tiitaru di jébile wala bëgg goo xam ne laa misaala lahu amul misaal waaye di nga fekk yàlla ne wallazina amanu ashaddu hubban lillah min al kuffar li awsaanihim di nga fekk ñi gëm yàlla ñoo gën a bëgg yàlla lu raw yéeféer yeeg bokkaalekat yi ni ñu gëmee seen kéeféer yeeg seen bokkaale gi mu ne suma rawaa ibnu zeyd mu ne haula al mushrikuun mu ne bokkaalekat yii andaaduhum alihatuhum allati abadu ma allah nee na ñi ñuy dendale yàlla mooy seen xërëm yi nga xam ne jaamu nañ leen boole leen ak yàlla foo fekk kuy bokkaale xolam ñaari xaaj moo fa nekk benn parti bi yàlla benn parti bi keneen di nga ko fekk gëm nañ yàlla waaye ni ñu war a gëmee yàlla moom lañ ko gëmewul ndax dañ ko gëm ci façon boo xam ne kenn du ko gëmee yàlla kenn du ko dendale wala nga koy bokk yàlla kese mu ngoog sa soxna parti bi mu féete ci yow yow kese la wala dangaa bëgg mu xaaj de am lu mu jox keneen loolu misaal bu ndaw la ci bu ñuy joxe allahu subhanahu wa taala ay akam moo tax mu ne yuhibbunahum ka hubbillah dañu leen a bëgg comme ni nu bëgg yàlla waaye ñi gëm yàlla wallazina amanu ashaddu hubban lillah min hubbihim li alihatihim ñi gëm yàlla ñoo gën a bëgg ñoo gën a dëgër ñoo gën a tar ni ñu bëggee yàlla ci ñii ni ñu bëggee seen xërëm yi loolu mooy wax ci njëkk ci asaani ñaareelu wax bi ci aaya bi wallazina amanu ashaddu hubban lillah loolu mooy génn wàllu li des ashaddu hubban lillah min al mushrikin bi andaadihim lillah ñoo gën a bëgg yàlla ci bokkaalekat yi ci seeni ndend yooyu ñu dendaleeg yàlla lu tax fa inna mahabbata al muminin xaalisa ñi gëm yàlla bëgg bi ñu bëgg yàlla dafa set wecc amul lu ci rax yàlla rek mu nekk seen xol waaye wa mahabbatu ashaabil andaad qad zahabat andaaduhum bi qistin minha keneen ki nga xam ne dafa bëgg yàlla bëgg leneen kii bëgg yàlla kese kee bëgg yàlla ak leneen bëgg bi mu bëgg yàlla am na lu mu ci dendale am na lu mu ci rax bëgg gi manqué na lu tax bëgg gi manqué na kii dafa joxe cent pour cent kii joxe cinquante pour cent ku gën a matle kon ki joxe cent yi ñoo gën a matle te nag loolu la ñu sàkku ci ab jullit mooy yàlla da nga koy jox lépp amul looy dese Makka lañ dem dajeeg benn góor boo xam ne bisu Musdalifa laa ko njëkk a gis mu naan dofu diw bi ñëw na maay dofu diw di yuuxu ci kaw ñëpp naan waaw aw mu yuuxu maay dofu diw Musdalifa mu dem Arafat ma gis ko Arafat lañ njëkk ma gis ko ñu dem Muzdalifa ma gis ko ñu dem Mina ma gis ko benn baat bi lay wax maay dofu diw dafa mel ne ku wéréti loolu rek mooy waxam dofu diw waa ngoog de maa ngi nii dofu diw te mu nekk dofu yàlla waaye dofu diw loolu loolu diine surtout nag nga dem ba ci yenn barab yi defi woo fa leen lu dul bokkaale mooy am coono perte xaalis yokk ay bakkaar place yi màgg yi boo fa màggalee yàlla say tiyaaba day multiplier wu gisoo julli sa kër ak julli jàkk loo ëpp tiyaaba ñaata naka noonu boo demee Makka wala nga dem Médine moo gën a force lu fii kon yow boo bàyyee place yu sell yi nga dem nga gën a yéeg gën a yéeg nga dem ba ci place bu sell bu mel ni màkk nga bokkaale fa ñaata bàkkaar nga waram nee nañ boo jullee ci jumaay màkk fii nii tey boo fi jullee ñaar tiyaaba nga yam benn set ak sa kër soo jullee sa kër ñaar nga yam benn nga julli ci jàkka jaam vingt sept nga dem ba màkk kaaba ga ñaata nga yam waaw léegi nag imagine la nga dem bokkaale loo yam loolu moo tax ñi nit ñi li ñuy def dañ ko xamut wala jànguñu ko wala dañoo réer waaw ah bokkaale du fi gaaw a jóge de mu ne wal mahabatul xaalis bëgg bu set wicc ashaddu min al mushtaraka ki la bëgg yow kese ak ki bëgg ñëpp boole la ak ñoom kan moo la gën a bëgg ñaari xale jigéen a ngi nii kenn ki ne la man bëgg naa la waaye nag il faut ma bëggaale ñeneen kenn ki ne la man yow rek laa bëgg koy takk ah lu tax jëloo keneen gi waaw kon bëgg gi nit ki bëgg yàlla kese boobooy bi wér waaye bëgg yàlla bëgg leneen mënul nekk nee nañ benn waaye dafa doon dem seeti benn xale bu jigéen mu ñëw rek xale bu jigéen bi tegal ko reer di ko gëmloo yow laa bëgg naan gis nga reer bi ma la toggal nangam ak nangam ba heure ñibbi jot mu dem ñibbi ndeke fàtte na fa ay veeram mu dem ba sori ne nii gisul weer rek mu tourné ñëw taxaw ci fenêtre bi dégg xale bu jigéen bi naan keneen man yow laa bëgg nangam nangam mu daal di fëgg fenêtre bi ne ko bëgg ñëpp eh bëgg ñëpp mu naa ma ne jox ma samay weer nit ki mënul bëgg ñëpp mënoo bëgg ñëpp di loolu mënul nekk léegi nga nekk naafeq noo xee da nga bëgg yàlla bëgg leneen bëgg ñeneen bëgg leneen bëgg bëgg bëgg mënul nekk kon ki bëgg yàlla kese kooku lam bëggam bëggeelam daal di biir waaye ki bëgg leneen ak ñeneen moom day sonal boppam mu ne wal qawlaani murattabataani alal qawlayni fi qawlihi taala yuhibbunahum ka hubbillah gis nga ñaari wax yi daf lay leeralal ne ñoom dañoo bëgg leneen comme ni ñu bëgg yàlla fa inna fiha qawlayni aydan mu ne wax ji tamit yuhibbunahum ka hubbillah mu ne am na ñaari wax ahaduhuma benn bi yuhibbunahum kama yuhibbuna allah mu ne bëgg nañ leen comme ni ñu bëgg yàlla fa yakunu qad asbata lahum mahabbata allah fii saw saw bu ndaw mu ngi fi yàlla da ne bëgg nañ ñooñu comme ni ñu bëgg yàlla lan la leen yàlla nangul fii question laa leen laaj yàlla nee na ñoom bëgg nañu ñeneen ñi comme niñ ma bëggee yàlla am na lu mu leen nangul lan la yàlla nangu na ne ñoom ci seen xol am na benn parti bu ñu ko jox da ngeen wax ndax yuhibbunahum ka hubbillah walakin mahabbatu sharaku mbëggeel goo xam ne dañ ko jaxase bokkook keneen fiha ma allahi taala andaaduhum yàlla lañ jël jaxase kook ñeneen dugal ci xol bi denc wasaani ñaareel bi ann almaana yuhibbuuna andaadahum kama yuhibbu almuminina allah beneen wax bi mooy ñoom bëgg nañ seen xërëm yi comme ni ñu ñi gëm yàlla ni ñu bëggee yàlla suma bayana taala anna mahabbata almuminina lillahi ashaddu min mahabbati ashaabi l andaad li andaadihim feewu aaya bi nag la yàlla leeral ne man ñi ma gëm ñoo raw niñ ma bëggee ak gaa yële xoolal tey àddina bi rek xale yu ndaw yi soo xoolee Palestine xool Égypte tey xool Syrie ay xale yu ndaw jigéen góor ñooy nangu di dee ngir yàlla di nangu di dee ngir yàlla jaral na leen ngir yàlla subhanahu wa taala kon yàlla ku ko bëgg daf lay jaral lépp cheikhul islam ibnu taymiya nee na rahimahullah mu ne yurja alqawlu l awal yarjihu alqablu l awal moom dafa tarjih wax ju jëkk ci jëkk ji mooy wax ji nga xam ne daf ne ñi gëm yàlla ñoo raw ni ñu bëggee yàlla bokkaalekat yi ni ñu bëggee leneen lu dul yàlla innama zumu bi anna sharaku bayna allahi wa bayna andaadihim fi lmahabba daal moo tax yàlla ŋàññi leen ñii lu tax yàlla ŋàññi leen yàlla leen a ŋàññi waaye lu tax jaxase giñ jaxase yàlla ak leneen loolu moo lay wax ne yàlla kenn du ko dendaleeg dara kenn du ko boole ak dara yàlla kese yàlla kese waaye Sénégal dañuy wax yàlla kese kese dafa dafa di tax dayee de kenn mu la yow di nga takk téere nga ni ko déedéet di nga naan nga ni déedéet di nga sangoon déedéet waaye léegi yow looy def nga ne ko ah man yàlla mu ne yàlla kese yow dina ngay dox rek ñaari yoon lañ lay wax loolu yow ngay doo takk nga ni déedéet doo naan nga ni déedéet yow yow da ngay xaru wóor na yàlla yow da ngay xaru loolu lañ lay wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ki gëm yàlla kese ñu ne ko yow ci da ngay xaru am nañ sunu benn xarit kii xam na ko papaam dafa gaañu gars yi dem suuli ko ñëwaat ñu ne dañuy dëj mu ne fii kenn du fi dëj gaa yi dem kaw dem suuf mu ne duñ dëgg faay woote rey ne ki xam ngeen ne ki ab dof la ndax yàlla rek la gëm da ngeen di xool nuñ nuñ ko jéem a naxee xool ab dof la yàlla rek la gëm gis nga xas bi kii ab dof la yàlla rek la gëm bu ngeen bëggee wax ak moom mu dë ñu def dëj bi da ngeen seet fu ñuy jaar da ngeen dof bi dof kon ku gëm yàlla lan nga dangaa dof waaw ku gëm yàlla kese kese da ngay xaru foog yàlla ak ñu ne waaw nii la waaw yàlla nag yàlla dëgg la dëgg la yàlla la waaye nag waaye nag am na loo xam ne fi lañ ko fekk am na benn sëriñ boo xam ne benn waaye def dëkk benn dëkk waar waa dëkk ba ñu daaneel xamb yi yépp takk téere yi dagg ko dagg gàllaaj yi am ku dem daal di wax wax waa sëriñ sëriñ bi ne ko dëkk sàngam bàyyi nañ la am na benn waaye bu fa ñëw fexe na bañ bàyyi la sëriñ bi daal leen di woo téléphone ñu ñu luwee ñaari njaga njaay jëm dëkk ba ñu yegg si wàcc sëriñ bi teeru leen ci saalam waaw ne leen dégg naa da ngeen a simpi xàmb yi ñu ne waaw ñu ne dégg naa da ngeen a tekki gàllaaj yi ñu ne waaw mu ne kaay leen ñu daal di jóg ñoom ñëpp mu ubbi wanag bi ne leen xool leen yéen de bu ngeen ko bàyyee man bàyyiwuma ko man de mi ngi nii yaay daal dem ñëpp sampaat ñoom ñoom ñu dem sampaat waaw ñoom ñoom ñu dem sampaat waaw ñoom ñëpp ñu daggoon daal di utiwaat takkaat parce que nee nañ sëñ bi moo nekk ci dëkk toll noonu lu mu def rek dëgg la kon loolu baax na xam nga moom ban dalil la leen indilee ne leen mu ngi nii def leen ne man fii laa ko fekk wala mun leen yàlla nee na yonent nee na man de mi ngi nii fii laa ko fekk moo tax man du ma ko weddi waaw mi ngi nii fii laa ko fekk moo tax ma def ko fi la fekk samay maam def ko ay maam lañu war a topp wala yàlla waaye ñoom erreur bi ñu def mooy waroon nañ ko laaj bi mu leen ne man fi laa ko fekk waroon nañ ko laaj dalil ne ko ndax lii lu ci yàlla wax ak yonent waaye gis nga Sénégal ñooy ñoo xam ne kenn du laaj si sëriñ mais kenn du laaj sëriñam gars yi li ñaan sëriñ sëriñ sëriñ yëpp sëriñ bi du laaj duñ ko laaj ba mu tontu moom kay lu mu wax rek noonu kenn du dem ci moom nag sëñ bi man de dama doon julli nangam ak nangam comme sunu timis su démb bi démb timis jàkka bi ñu doon jullee timis yéen maam yi dafa wax dafa fàtte toog rakk bu mujj bi timis mu jóg taxaw gars yi ne ko subhanallah mu daal di wàcc toogaay mu julli ba julli gi jeex mu taaya daal di sujjóot baada salaam gars yi ne ko subhanallah mu daal di toogaat sëlmal doog a sujjóot pare luy wax ji baal leen maax de baal leen maax de baal leen maax jëm jóg dem sa yoon ku mënul warul jiite loolu amul aax dangaa mënul nekk ci ginnaaw du force mais Sénégal tey ma jiite leen wala ngeen dee waa fii falu wala ngeen dee ñun tamit ñu nangu ko ah ñun tamit ñu nangu ko ñun peuple lu ñu nangu ko ndax bu ñu duggoon oto apprenti bi ñëw di dawal ñu ne nii gis chauffeur bi ñun ñëpp lu ñuy wax dama leen di laaj lu ñuy wax ku duggoon super super bi daw ba caagi chauffeur bi daal di taxaw daal di dem ci ginnaaw jël pochette bi ne apprenti bi dama ci kanam ah yàggul ñëpp wàcc ah dégg nga voilà kon gis nga gis nga gis nga oto rek ñun ñëpp buñ ci duggoon chauffeur bi daw ba caag daal di wàcc daal di ne apprenti bi kaay noppal ma ñu ne lu ñuy wax ñu leen ma kenn du ko nangu lan moo tax suñu diine ñun ñu nangu ñu xamul dara duñ jiite noonu la ci wér wàllu wér gu yaram boo demoon docteur bi taxaw kii def stage taxaw nga ni kuy docteur bi ñu ne mu ngi nii waaye demal kii kii moom day jàng faj démb la fi ñëw demal mu faj la kuy dem kenn ci ñun du dem naka noonu ci lépp même ñiy jàng xam ngeen ne maître bi ak kii def stage duñ benn wala waaw ak kii def formation duñ benn léegi ci diine l'islam rek ngay gis benn waaye ñëw rek daal di tari faate ak falak ak naasi rek ñu ne ko imaam keneen tëll ne qaala rasul ñu ne ko usaas noonu la yéegee nag di dem keneen kaalawu yor kurus ñu ne ko sëñ bi moom au lieu léegi mu nekk diplôme wala wala jàng déedéet tari nga faatiha ak falaxi ñu ne la imaam nee nga qaala rasul ustaaz am nga kaala am nga kurus ñu ne la sëriñ bi kenn du wax ndax jàng na kenn du wax fu mu jànge waa moom ban école la génnee waa moom ban diplôme la am ndax moom wàcc na alxuraan ñaata téere fiq la jàng dinaa benn waay dafa am ku gaañu rek ñu ñu toog di ko xaar mu ñëw ak grand boubam grand boobu yooyu di taxaw xam ne boo toogee sax day taxaw ñëw rek ni li xam leen benn waay daal di dagg mbooloo mi ñëw daal di ko ne zëcc poñ ko summa yi ci risaala yaa ci mujj ci ginnaaw xam nga boo demee ci risaala dañuy wax bu ñuy wax jullee néew borom xam-xam buy lim ñuy jullee néew day wax ku mel nii ku mel nii ci xam-xam la tàmbalee mel nii mel nii mel di ko lim di ko lim di ko lim di ko lim di ko lim di ko lim ba ci bu mujj mu ne borom ba mu rafet gis nga moo tax bi waa ji ñëwee ne nañ jullee néew bi mu ne li xam leen waa ji daal di ñëw rek ne ko su ci risaala yaa ci mujj dama ci ginnaaw loolu moom Sénégal xam nga ne ki ñëw fekke néew ñu ne nañ ko jullee nga ni li xam leen yow jàngoo fiq xamoo dara ci diine te nag loolu moo fi bari waaw loolu moo bari Sénégal ay nit yoo xam ne catastrophe yi ñuy def ba pare dañ koy laajee ngay gis ku taxaw di ko laaj non soo gisee lii lii la soo gisee lii lu tax waa ji def lii moom dafa am sañ-sañ wala nangam nangam dafa xamul dara rek ndax yonent bi li mu def ne nii la beneen waaye ñëw def leneen kooku dafa xamul dara kenn waru ko utal lay ak ngànt dafa xamul wala jàngul kon loolu tax ñu war a góorgóorlu gëm sunu diine bu ko nit ñi di caaxaane ñun ñu màtt ko ak sunu dëgg mu ne ñii yàlla ŋàññi na leen ndax dañoo partagé ngëm giñ ko war a gëm ak leneen walam yuxlisu laha lillah sella lu ñu jaglee lu ñu yàlla seen bëgg-bëgg ñoom dañu bëgg yàlla ak leneen ka mahabbatil muminina lahu comme way gëm yàlla yi li ñu gëmee yàlla kese ñoom defuñu loolu dañ ko jaxase mu ne wa haadihi taswiya almazkura fi qawlihi taala hikayatun anhum wa huwa fi nnar nee na gis nga ŋàññi gi yàlla ŋàññi leen ba pare nettali ko nee na même même yow mal xiyaam nii la ñuy def buñ duggee safara lii mooy li tax yàlla dugal leen safara mu ne yàlla nee na bu leen yàlla boole ak xërëm yi ñu doon jaamu ak seen yàlla yooyu ñu daal di teew ñoom ñëpp ci mbugal xam nga lu ñuy wax tallaahi giñ nañ ci yàlla inna kunna la fi dalalin mubin ñun de nekkoon nañ ci réer bu biir lu tax is nusawwihim bi rabbil alamin ndax ñun ñoo leen doon tollal ak yàlla borom bindee dëkk ñun réer nañ laa il waaye xoolal ñii mbokk yi kañ lañu réccu kañ lañu réccu bi leen yàlla buggalee safara ñoom ak ñi ñu doon topp ñu nekk fay màtt seen baaraam naan ñun de dañoo réeroon lu tax is nusawwihim bi rabbil alamin ndax ñun ñoo leen doon tollaleeg yàlla ndeke yàlla kenn du ko tollaleeg leen mbokk yàlla kenn du ko tollaleeg leen wala kenn wallahi doom bi nga jur bu la tollale woon ak benn paa nga pes ko ba nopp bi nag demal ci biti bi nga jëndal ma nangam nga mu dem ñëwaat nga ne ko du tax nga yéex mu ne paa diw moo ne woon naa dem nga jëndi leneen noo koy def da ngay xëttu nopp bi kon kenn du tollale yàlla ak kenn parce que yàlla du morom waaye ku xamul nag ku jàngul nag ku pas-pasam wérul nag loolu moo tax gars yi bañ duggee safara dañ doon waat naan tallaahi giñ nañu ci yàlla in kunna la fi dalalin mubin ñun de nekkoon nañ ci réer bu biir lu tax is nusawwikum bañ leen tollalee bi rabbil alamina ak borom mbindeefi loolu aaye suratu Shu'ara la aaye 97 98 mu ne wa maalumun lu ñu xam la annahum ñoom lam yusawwihim bi rabbil alamina fi lxalqi wa rububiya ñoom tolle na wunu yàlla ci bind ak yàlla nekk gi mu nekk yàlla waaye wa innama sawwawhum bihi fi lmahaba wa taazim ñoom ci lan lañ tollale yàlla ñoom leer na leen kii ñuy topp bindul bindul nit ñi xam nañ ko wala xam nañ ne du borom bindee fi kon ñoom lan lañu tollale yàlla waa ji ak yàlla lan lañ ko tollale mooy bëggeel ak màggal wala koo fi fekk muy muy bokkaale ut kilifaam di ko bokkaale ak yàlla soo ko nee ndax sa sëriñ bi moo bind nit ñi lu muy wax déedéet bindu xam na xam naa ne bindu leen soo ko nee ndax moom lañ war a jaamu mu ne la déedéet waaye kon moom lan la def ba tollale yàlla ak waaj ñu ci xol bi la soo ubbee xolam doo fekk yàlla waa ji nga fay fekk bëggeel bi mu bëgg waa ji bëgg ko yàlla bu ko waa ji wooyee mu dem bu ko yàlla woowee ay yàlla sax ñëw ñun ñaata ci ñun fii xew-xew diine yi dañuy duy ay njaga jaay ak i kaar ak i ay bis wala te bi su nekk ñu dégg final bi di noonu ay yàlla salaa kenn du julli te bu waa ji wootee léegi ne dama soxla ginnaaw suba na ngeen ñëw ngeen bayal ma tool bi ñëpp daw ëpp nga gis koo xam ne dina ko jaral mu jóge Europe bàyyi léppam yàlla woote na màkka walillaahi ala naas te jul bay nga dégg waa ji ne màkka da jar sa dem ah fii de ku fi dem rek daanaka dem nga màkk is nusawihim bi rabbil alamin dañuy tolle la ñooñu ak yàlla moo tax yàlla mu ne ñii ay yéeféer lañu képp ku may tollale keneen wala képp ku may bëgg di ci teg keneen yow ak yéeféer la mbokk yi mu ne loolu moo tax borom bi tabaraka wa taala mu ne ñoom yemale biñ ma yemaleeg ñeneen mooy ci mbëggeel ak màggal wa haza aidan huwa al adlu al mazkur nee na li mooy maandu te gi yàlla wax fi qawlihi taala ci beneen aaya ci beneen saar alhamdulillahi allazi xalaqa alsamawati wal ard wa jaala alzulumat wannuur summa allazina kafaru bi rabbihim yaadiluun yaadiluuna bihi gayrahu fi l ibada allati hiya al mahaba wa taazim gis nga borom bi lu mu wax mu ne alhamdulillahi cant ñeel na yàlla allazi yàlla mi nga xam ne xalaqa moo bind asamawaati asamaan yi wal ard yàlla moo bind suuf yi wa jaala zulumaat wa nuur yàlla moo sàkk lëndëm sàkk leer waaye lii lépp yàlla def summa allazina kafaru bi rabbihim yaadiluun yéeféer yi ci seen borom luñ def utal ko morom jeng xam nañ ne ñoom ñi ñu topp defuñ dara demal ci kilifa gi nga topp nga ne ku bind asamaan lu mu lay wax ku moom suuf ku moom bëccëg ku moom guddi ku moom lëndëm ku moom leer waaye bu fakka saloo ku muy woo du woo yàlla suy waat ku muy ci ku muy waat du waat ci yàlla ah te moom nangu na ne yàlla moom moom lépp waaye lu muy def du ci boole yàlla summa allazina kafaru bi rabbihim yaadiluun mu ne yaadiluuna bihi gayrahu fi l ibada dañoo jéng ba jëlli yàlla moom ci jaamu gi jox ko keneen mooy bëgg bi ñu ko war a bëgg ak màggal gi ñu ko war a màggal man bu fekkee bu ma ñëwee ci jàkk du ma yaru su ma ñëwee ci saaluwaa ji ma yaru su ma ñëwee ci jàkk ji damay yuuxu lu ma neex laay waxee lu ma neex laay duggee dangay gis koo xam ne bu duggee jàkk garam boobu bi day firi ñaari cat yëpp garam boobu bi taxaw muy xoos nit ñi kuruj kuruj kuruj kuruj ba taxaw ci kanam bu fekkoon ne day dem ci nit bu séenee waa ji simmi garam boobu bi toog ci suuf mën naa fekk benn ngénte jamono boobu la am na kenn ku ñuy wax fi sëriñ boobu lay doog a xew boobu lay doog a woote ci wootekat yu mujj yi la boobu lay doog a xew waa jooju benn général wala colonel gendarmerie di ngénte ndeke ci taalibe mi la bokk ñu toog ba midi di xaar di ko xaar ñu naan sëñ bi ñëwagul sëñ ba midi jot ñu jékki-jékki rek yuuxu ay nit yuuxu ndeke moom mooy ñëw gis nga colonel boobu ak mbasin bi mu sol lu weex li ak marakiis dafa ne farax ci suuf toog ci suuf la ne farax toog ñu oto bi gaara ñu ngi bunt bi waa jooju ma leen di wax daal di jël loxo bi teg ko doog a jóg jamono boobu la waa jooju di doog a xew boobu lay doog a xew Sénégal boobu lay commencé di woote boobu nit ñu bëri xamuñu ko boobu turam sax ñu bëri xamuñu ko waaye boobu lay commencé xew ba fii mu ba fii mu toll nii xoola kooku màggal bi mu màggal nit kooku xoola yére yi mu sol xoolal personnalité bi mu am ak ndomba tànk yi mu takk mu bàyyi loolu lépp toog ci suuf te bu demoon ci jàkk di julli bu sàpp yi feesee jumaa ji fees amul sijaada bu mu lal day ñibbi këram boo ko waxee mu ne la aw ma fu ma aw ma fu ma taxaw parce que sama yëre yi bon yi gani laa la wala mbasin dis la ah tey waa jooju bu yëre yooyu foofu mu toog bu takkee bu ko joxee jabaram bu koy fóot day kontaan su jabar ji demoon ci jàkka ji su jëkkër ji demoon ci jàkka ji di julli jàkka ji fees mu julli ci suuf si mu ñëw jabar ji ne ko yow yëre bi lu ko def nii mu ne ko dañ biñ doon julli de laa julli ci suuf mu ne ko ci suuf nga su yëre di julli duma ko fóot c'est que dangaa salte waaye bi mu ko bu laajee jëkkër ji mu ne waaye yëre bi lu ko def nii mu ne ko keroog bi sëñ bi di ñëw damaa daanu rek daal di ay damaa daanu leer rek bërëngu ci suuf si donc est-ce que waay kon looloo tax mbokk yi foog ñu bàyyi xel yenn jëfin yi dëgg la waaw waaw ndeysaan loo loolu yàlla mun ko am loolu yàlla mun ko am ci nit wallaay est-ce que loolu nit yi nañ ko defal yàlla léegi kenn may dem jàkk ñëw ba ci buntu jàkka ji simi sa daal diraam kenn kenn du ko def danañ yàlla jubal danañ yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp mu ne qawluhu taala kon ci aay boobu noonu alhamdulilahi alladi xalaqa alsamawati wal ard jaala zulumati wan nuur summa allazina kafaru bi rabbihim yaadiluun mbokk yi ci tafsir ibnu taymiya boobu ci kitaabu tawxid fii la ñuy yemale première dars bi mu nekk darseelu darsu fanweer ci kitaabu tawxid ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu bu fekkee am na ay questions